salaamay ka xalid yaa إلهي بهمتي على المنتخى خير البرايا محمد سلامك خلد يا إلهي بهمتي أيا ما هي مجد وسودد مزايا كرام الهان ناغم لي الملام وكل ومسودد بهديك سيدتي هدى بك ربي كل. donc bu ñu ziare ci weer bi tam yi. la xamal ne liggéey bi nga xam ne moom la ñu doon moom la ñu sant ñu di ko liggéey ci jumaa ji dañ cee boole ay waxtaan yoo xam ne muñ jullee takusaan bu noppi ba ba jant ba ba dag di jot moom la ñuy def ni ñu ko baaxoo defee at mu jot nag bu ñu koy waajal dañ la indil barnaamij ba nga xool ko xam ñi ko war a def xam yi ñu war a def waaye yooyu nag dañ ko daan tënk di ko dajale su ma tee ab téere ñu def ko ab téere defoon nañ ci benn téere ba euh, mu jotoon a génn ba ñu tasaare woon léegi nag ñu defaraat ci beneen téere bu bees boo xam ne dafa dajalewaat waxtaan yi jàlloon yëpp ñu def ko ab téere ba mu àgg téere bi moo nekk nii tey moom lañu lay jébbal si léegi nag sëñ Abdou Lahad mi dana leeral li nekk ci biir li nekk ci biir téere téere bi euh, ñeenti at yi la dajale 2018 la tàmbali maanaam juróomi at yi ñoo ci nekk ñu ngi ko tënk ci euh, juróom euh, ñaar fukki mawduwaat ak juróom mexwar bi noonu la demee. am na tamit euh, lu mat fukki fukki waxtaan yoo xam ne ci fekk lay wax ak juróom-ñaar yoo xam ne ci suufi mouridisme lay wax ak euh, juróom-ñett yoo xam ne euh, day wax ci wàllu mawdu yoo xam ne ci yeneen actuel tamit thème yu wuute yoo xam ne ci lu yitteel jamono rek am na ay fatwa yoo xam ne tamit laaj yi tontu yi da cee nekk am na lu mat juróom fukk ñeent ay ay laaj yoo xam ne tont dañ ko ci biir sëñ Seexuna Mbàkke Abdou Wadoud moo tontu ñaar fukk ak ñeent yi sëñ Mbàkke Abdourahmane tontu fukk ak juróom sëñ Seex Buso imaam Gédé tontu fukk ak juróom boo ko xoolee daal waxtaan yi nga xam ne moom lañu def ci li tàmbalee 2018 ba léegi moom lañ dajale ci téere bi muy liggéey boo xam ne lañu saxaafa bi nekk ci daayira bi ñoo koy def ma liggéey la boo xam ne ci liggéey Muxaddamatul Xidma la bokk comme ni ni ñi ni ñi ni ñuy sate la jumaa ji ak noonu tamit dafa am liggéeyu xam-xam bu am solo boo xam ne dafa bokk ci liggéey bi ñu koy def ñu gis ne waxtaan yi rek doyut nit ñi dañ koy dégg waaye mën nañ koy fàtte waaye boo ko bindee téere mu tisaaroo ci université yi ak borom xam-xam yi dana gën a dana gën a jëmm waaw day am njariñ lool te day doon loo xam ne day nit ki bëgg gëstu day ñëw fekk waxtaan wuñ gëstu ba noppi nga xam ne day ñëw rek mën a mën a mën a mën a mën a mën a wax waaw day du jar yan leeral yoo waaw waaw biir koor gi tamit dañuy woo mboolem jumaa yi ak jàkk yi nekk ci jumaa ji ci ci dëkk bi di leen defal ay tàggat yoo xam ne dañu leen tàggat ci noddu ak liqaam ak xutba nan lañuy ñuy xutba ak nan la ñuy bayaane ak lu ñuy yore jumaa ba tàggat nañ ci lu mat ñaar téeméeri jàkk ak ay jumaa ak juróom fukk waaw te dañ dañuy bind tamit benn téere boo xam ne daleen di jàngal loolu boole kook li ñuy tàggat yónnee leen ko ci seeni jumaa ñoom it ñuy continuer di ko jàngal di ko jàngale loolu it liggéey la def ci ci ci biir koor gi waaw mu ànd ak ndogu yi waaw ni ni ñuy ni ñuy dogale nit ñi daal lu ma junni yi nit ñeenti junni di fa daje noonu lañuy ñuy liggéeyee ci xam-xam ci biir koor gi kon lii ci meññet yi waxtaani koor gi la bàyyi ko bii mooy ñaareelu téere bi indiloon nañ la benn bu njëkk ba waaye bii mooy ñaareel bi nga xam ne génne nañ ko ñu indil la ci nag euh, sa sa mu toll ci ñaar téeméer ñaar téeméeri téere lañ la indil ngir ngir ngir waaw li ci des a ngi fii nii waaw waaw Ah? waaw waaw mooy bii waaw ñaar téeméeri teer lañ la ci indiloon. kees yaa ngi buntu bi ah, waaw waaw. ba mu agsewul fii loolu yaakaar réyu na ci lool sama xel gënoon na cee daal itam te boobu agsewul fii rawatina kon nag bi mu ñëwee agsee fii dëgg yàlla fatabaaraka llaah moom taxawaay bi mosuma dañ di ko umpale te di ko naw lool di sant rek di sant suñu borom bu baax mosuma rek sëñ bi di sant sëñ bi suñu lépp te yàlla ndax loolu lépp fàggu teefa moom fàggu lu mu bëgg lépp fàggoon fàggu na ko digg ma boromam te borom bi woon déggoo ci boromam kon boromam fi nekkal kon lii eh, alhamdulilah liggéey bu rëy la tawfeex ju la it ci waaw dañuy xam-xam bi ngeen boole ko jëf jëmale ko lépp ci bokki julli yi bokki taalibe yi loolu wa tabaarakallaahu ni eh, ma ni ma ni taw fa joxaan rek la taw fa joxaan xaas rek la jërë ngeen jëf moom daal eh, sant nañu yàlla bu baax a baax ndax nag eh, suñu la boo xam ne alaa kulli xaal nag yéen waaye nag ala kulli jiitu xam-xam moo jiitu xam-xam moo jiitu kon nag wa tabarakallah noonu ci noonu ci noonu gën a sant rek gën a sant rek am gën xel mu daal doon lu doon ci eh, ci ci bi itam eh, ndax xam-xam bi rek moo yoo xam ne bu sañoon rek eh, dana dana xóot lool te ndax liggéey sëñ bi moo demee noon liggéey yàlla bu sell la diggante charia diggante charia ak xaqiqa ak ak ak mawaahib bi nga xam ne yàlla defal na ko coobareem hmm. loolu bu fekkee taxawaay bu mel nii am na ci am na ci am na ci liggéey bi kon xel mën na si jàpp xel mu daal suñu yéene rëy na ci lool waaye suñu xam suñu daal na ci jërë ngeen jëf kenn te loolu kenn kenn jiituwu leen ci kenn jiituwu leen ci moom leen nawe yàgg na lool ndax yitte ji yitte ji rek mooy mooy li mooy li jafe ndax lu mu mën a doon rek fu mu àgg rek yitte ku àggale te xam naa yitte ji fa tabaarakallaahu mat eh, na sëkk yitte ji dara desu ci ah ñu doog nag suñu gën leen a ñaan suñu borom muy borom lépp di borom di borom kattan eh, de yàlla wéral leen te kattan leen te te te dolli seen tawfeex Sëriñ Tuubaa ji ngeen am ban euh, liggéey seen liggéey bi ngeen gën koo mën mu mu mu mu yokk di bi te na mu gën a leer na mu gën a am njëriñ ci bokki taalibe yëpp boole ci bokki jullit yëpp jërë ngeen jëf la la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi lañ ko war a gaaral maanaam tisaare guñ ko dañ ko dañ la ko indil ba noppi ñaar fukk ak juróom-ñeent nag lañ ko war a gaaral ngir leeral li ci nekk doog ko tisaare ci borom xam-xam yi ak ak ñi ko yittewoo incha allah waaw yónnee toll. Mhm. xam ne dama ko bëgg dama ko bëgg a lépp. Mhm. jot gi mayatu ah, ma jot gi mayatu ma ah, loolu moo ci métti waaye nag alhamdulilah rabbil ñi ah, ko mën a jëriñoo yéene naa leen ko loolu ci sama bopp rek laa ko yéene yi daañu ko taal ñëpp kenn ku ne na fetti laxasaay mooy